mi ngi koy méttilu mu ngi leen di massawu mi ngi koy e, sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax ñëpp ak njabootam lañ lii li muy gaaw gaaw moom ci boppam yëg na ko ci suba bay wax bay xalaat naka la demee ak nu tiis wi demee loolu nag ñun ay ndaw lañ yoo xam ne daf ñoo jël teg ñu fi ñu di ñu saytuloo liggéey bi ak njaboot gi su lu mel nii xewee danañu wàcc suñu lépp ñëw ci ànd ko ak yéen jàppalante ci ak yéen def ci liñ ci war a def yëgal ko ay ndaw lañ ki nga xam ne mooy kilifa gi nga xam ne moo yëlif ñëpp loolu moo tax maire bi jóg ànd ak les adjoints maires yi ànd ak conseil yi ànd ak monsieur le préfet de département de Mbacké ak sous-préfet arrondissement Ndam ñu ñëw ak sapour pompier ak xaadim euh, mii nga xam ne moo nekk ci social ak autorité yi ñëw di leen massawu waaye di xool si lii xew naka la xew ndax sëriñ bi moom sàmm njaboot gee ko sëriñ Touba Baye la nekk ak di leen ñaanal ak di leen saytu administration bi nga xam ne mooy président de la république bi nga xam ne moom la yàlla jox réew mi te ak mu teg ministère de l'intérieur ak administration bi li saa bu lu mel ni xewee ñu ñëw jël seeni tànk ñëw xool constaté ko xam li xew lan la ak lan a ko waral dana tax ci sarti réew yi ñuy tëral ak ci sàmm gi nga xam ne autorité sécurité publique dana ko sàmm ñu xam ne lii xew nii la xewee woon ba yan matuwaay lañuy jël ba éviter loo xam ne ni lii xew bu bu bu dootu am wala yan matuwaay la ñuy jël ba lu mel nii dootu am bay indi jéyee ju mel nii loolu mooy wàllu administration lii moo ci wàllu sëriñ bi li ci des nag mooy wàllu taalibe ak moroom ma boo xam ne saa bu amee bànneex war na koo gis moroom taalibe moroomam jullitam saa bu amee tiis wala naqar war naa gis mbokkam taalibeem wala mbokkam jullitam ndax loolu rek la ñu fi sunu borom boole ndax innamal moom noonu ixwatun la alquran wax kon nag ñoo ngi massawu eh, ñi nga xam ne wàjjur yi ñooy xale bi di leen ñaanal fi fi leen xale yi waroon a fare yal na leen sunu borom wuutal lu ñu ko fàttee te yàlla da mi dogal dogal li ji yem fi te wàcc fi jàmm ak barke di ñoo ngi leen koy ñaanal ci dara jee sëriñ bi di leen di ko ñaan jullit yëpp ñu ñaanal leen ko li ci des nag mooy lépp luñ ci war a taxaw ci taxawaay bi danañ ci taxaw ñu ngi ci hôpital bi wa xaadim yabal na fa ña nga ca hôpital ba danañu occupé pour ñu jot koor yi woo naa commissaire commissaire ñu ngi ci diggante bi pour ngeen libérer leen corps yi ngeen mën leen a denc euh, ba nit ñi mën a euh, def njaal seenam njaal ñu dellu ci seen te li ci des autorités yi danañ ci def liñ ci war a def lépp. voilà xale yi moom amuñu bàkkaar yàlla moo ko def donc euh, métti na nag parce que ñàkk ñetti doom dafa noonu metti ñenn ñi ñaar ñi seex lañu. ah kenn ki ah, kii ñaari ñoo bokk ndeeg bàyyi seex yi eh, keneen ki tamit seen ñoo bokk bàyyi donc euh, ku góor ki moom wax dëgg yàlla Umar Gueye ah, am na tey jii métit am na tey jii lu méttee métti mais dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may xolu muñ xale moom ñëpp xam nañu ni moom lu ñu leen di ñaan rek mooy yàlla nañu yegale seen ndaw ah, sa ajana waaw te dafa am na lu ñu bari lu ñuy wax si loolu waaye daal euh, nañu leen ñaanal yàlla na yàlla may muñ te yàlla na fi dee gëj jërë ngeen jëf. dañ ñëw li fii nag ci ndigal autorité yi à commencer par le préfet de Mbacké moo ñu jox des instructions pour ñu ñëw fii teewal vraiment les autorités de la République ndax di bokk ak ñoom vraiment ci tiis ak naqari pour lu fi am di leen tam aussi di leen jotali aussi euh, seen jàll. ndax euh, lu fi am yoo xam ne fu ma nekk nii dafa nekk loo xam ne ñun ñëpp ñoo bokk. kon nag soo amee dal ñun autorité aussi la république war na ci déplacé ñëw fii marqué par sa présence ci li ñuy wax tam aussi vraiment lu am fii tam aussi euh, jombul kenn kon nag men ñun ñëpp yoo fa mu nekk nii war nañu def attention ci surtout ci kër yi comme euh, le maire ni ma waxee nii euh, kër moom ñëm ñëpp di dem ba bàyyi fi ay xale dafa wóorul dara te lii nu fi lu soo gisee yu mel ni tam aussi dafa mel na am négligence négligence tuuti daal man je pense que te lu lu fi nekk nii daan war nañu fexe daal ba lii mu bañ am kër yi daal bu ñuy leen tëj dem fuuti bay ay xale ñun may eh, di gën a toppatoo xale yi bu baax daal ndax bay ay xale yi bokkul mu wóorul daal léegi nag état bi tam aussi ci boppam incha allah lépp lu ci war roote aussi ci taxawaay aussi dana taxaw ci famille bi pour accompagner leen incha allah quoi protection waaw li ma wax ci askan yi mooy yoo xam ne fu mu nekk comme na ma doon wax rek ne nit yi nañu gën a toppatoo yoo xam ne vraiment xale yi bu baax waaw ah, bu xale rek bàyyi ko vraiment ci biir kër yi dafa nekk loo xam ne vraiment warul warul nekk na am toujours xale yi ñoo am koo xam ne ku nekk seen wet di leen accompagner di xam lu ñu def ci kii si biir kër yi quoi parce que lii fu mu nekk nii tey vraiment équation la ñi nit xam lan moo indi léegi ñuy laaj lan moo indi par exemple yoo xam ne jéy bi kenn xamul lii yëpp lu war bala yoo xam ne au moins ña euh, absence yoo xam ne ñëpp di kenn nekkatu ci kër gi mag yi kenn nekku fi loolu moo indi yu mel nii waaw ndax su fekkee ne am ñu fi nekkoon dañu mën a am au moins xam lan moo waral ndax kenn mënul bu joxe exemple yoo xam ne wala mënu joxe réellement lan moo waral yoo xam ne jéy bi fi am. xale seen baay yaay ma topp ci man non bokk mu topp ci man bokk bokk ndey ak baay maa ngi di yaayam biig bi ñu waxee ci guddi huit heures de matin ma fekk muy mbir moo xam ni nangu noonu dogal suñu borom la dañ ci sant yàlla bu baax nag xam ni yàlla moom moo na ko joxoon moo ko jël mbir yi daal am na ñaari mat la yu nekk ci ginnaaw espace bu ne bi diggante pereng bi ak néeg bi xam naa boobu nag maa ngi kër gi kenn newu fi xale yi nekk foofu ci ku ci mat la mat la yooyu xamu doon def seen mbiri xale ba mu tàkk seen kaw loolu moo leen yóbbu mu dogal suñu borom eh, ñaar ñi ñoo bokk ndey ba ay seex lañu kooku aramtaal mooy leen jur sama doom kooku aramtaal mooy seen mooy seen yaay kenn ki nogay jug moo ko jur moom ci dix heures ay dix heures yooyu la la décédé parce que démb ma xam hôpital waaye ay dix heures la décédé dix léegi ci suba kenn ki dix léegi la léegi ci ay dix la décédé moom kenn ki asa am na ci am na ami ami am na sang Guèye keneen ki loolu la Maguette Guèye la sa jël e, li ci dégg nag mooy sant autorité yi bi teew tey ndax mbir mi disan noonu lool léegi woyof na tooy ci noonu ndax bu fekkee da am tiis am naqar say kilifa ñëw bokkoo kook yow jàpp ci jàppale la loo naqar woon day wàññiku kon noonu ngërëm tam li ngërëm li ci président de ak ministre de l'intérieur ak gouverneur ak monsieur le préfet de Mbacké ak sous-préfet Ndam ak maire dëkk bi eh, di sëriñ si Xaadim moom mi nga moo fi teew ci wàllu couche sociale kon teewaay yéen fi teew tey seet na suñu xol guy yal na yàlla fay leen yal yàlla fay leen tànk yi ngeen fi yëkkati doxee ba ñëw fii lépp yal na ko def bindu tuyaa ba yéen ñi nga xam ne yéen autorités yal na yàlla ko seen i garaat bëgg dégg bëgg bëgg yegg ci barke Serigne Touba noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mbir mi bu disa nit woyof na ci noonu